mbokk julli mbokk julli mbokk julli mbokk taalibe yi ñu leen nuyu leen ziara fii ci daara Kamil di bëggal Cheikh Khadim di barab boo xamante barab boo xam-xam la ki nga xamante ni moo fi def mooy Sëriñ Abdou Lahad Mbacké eh, ci 1977 def fi lépp loo xamante xam-xam la bu nit di yittewoo ci fii nag da ko organisé xaaj xaaj bu njëkk bi lépp lu jëm ci alxuraan yi nga xamante ni sët Sëñ Tuubaa ñoo ko bind moo nekk saal bu njëkk bi ñaareelu saal bi mooy saal bi ñu nekk mooy lépp lu jëm ci wàllu mbindam Sëñ Tuubaa ci jëm ci téré xam-xam yi wala téré xaside yi wala ay témoignage suñu jot ci moom wala ay dénkaan yu mu def moom Sëñ Tuubaa kon fii boo fu dikkee ci saal bi moo leen li fi nekk lépp Sëñ Tuubaa ko bind ci ay téré xaside ak téré xam ñaari ñetteelu saal bi mooy lépp lu jëm ci culture générale moo dem xam-xam yi nga xamante ne moom lañ jéggaani bitim réew loolu boo dikkee ci saal ci fànn yu la neex boo dikkee di nga fekk kon euh, am na saal boo xam mooy salle de lecture boo xamante ni mbooleem téere yi nga gis nii am na fu ñu ko mën a jëriñoo saal boo xamante ni fi ngay toog liir wala nga def fa say kii gëstu ci ba nga am li nga bëgg ci téere yi kon fii daal mooy daaray kaamil di barab boo xamante ni nag barab boobu xam-xam la boo xamante ni lépp loo yittewoo ci téere yi bu dikkee da fekk kon fi ñu nekk di salle bi mbooleem li fi nekk lépp ay téere xasida la ak ay téere xam-xam yoo xam Sëñ Tuubaa moo ko def nga xam ay diiwaan la ne diiwaan lu ñu ko waxee ay ti benn téere lañ jël daal koy def ay def ci ay téere yi ay xasida yi wuute yoo xamante ni benn bokk si moom boo xool diiwaanu tawhid am na diiwaanu euh, quraan ya diiwaanu am daa diwaanu salaatu ala nabi kon mbooleem diwaan yi ngay soxla woo yu ko dégg wala xaside yi soo déggee fii ci daara kaamil nga ko fekk kon daal loolu mooy daara kaamil ci gàttal ci tënk di ñaan yàlla suñu borom yokk ci bàkk Serigne Touba xéewal yi ngeen bëgg a liggéey Serigne Touba Serigne Touba jàppal leen ko ba ngeen ci 1977 ci Serigne Abdou Lahad Mbacké di ñetteelu moo ko defaroon ci atum 1977 bi mooy muy am moom li liggéey bi muy barab bi Ousseynou Diatara ci